lii nag muy Bawal ak Sine moo war a nekk capitale logistique commerciale et industrielle bien que yeneen dëkk yi danañ ko am waaye fii la la la dox daje bi war a nekkee ndax moom la nekk mooy centre bi te ñëpp xam ne ne centre li muy loolu nag boo ko defee da xam ne daara ji ak tool bi da ko war a développer te loolu xale yi dañ leen a war a yombal nit ki bu dee day sonn avant muy jàng si njàng ma du dem na mu war a demee. mooy de transport yëpp ngi fi raaya ngi fi mën nañ ko def li teer amee dakaar mën na koo amee fii. yëpp xam nañ ne Touba raay bi moo moo tax mu développé économiquement Serigne Modou Moustapha bi muy tabax jumaa ji ba xamee ne transport bi day cher ci camion yi wala nit ñi di ko indi day metti moom moo fay raay bi diggante Njaareem ak Touba. kon loolu dafa war a nekk raay dafa war a nekk ci emblème mu Touba. waxuma la sax yem Mbàkke waaye jaar fii dem ba Kayal dem ba Tiib dem fépp dafa war a mën a nekk ndax li defar route mooy defar raay te raay defar bi boo ko paree moo gën a moins cher raay boo ko laalee téeméeri at doo ko laalati train ba nga koy teg mu dawal moo gën a moins cher benn moto rey tàkk wagon yi topp fexe ba ñu industrialiser ko xam nga agriculture moom Sénégal gépp la soo nee damay développer agriculture rek jarul nga wax Sénégal gépp zone agricole la mais développement Mba euh, Mbacké Touba centre bi laa la wax centre bi mooy Sine Saloum Bawol ak benn partie ci ci Njàmbur dafa war a nekk zone industrielle logistique et commerciale internationale ce n'est pas uniquement pour le Sénégal dafa war a nekk ni Dubaay mel loo fi soxlaa mu am fi nag nga def ko ay pàcc xëy na benn bi Kaolack lay gën a ëppee benn bi Touba lay gën a ëppee Touba moom xam nga ne développé na ci commerce waaw ndax léegi transformation gerte gee geeg yëpp fii la ëppee Touba mën na développé ci industrie ndax population bi fii la ëppee à partir Touba dem euh, dem dem euh, euh, Sénégal oriental soreetul dem Fouta soreetul dem Kajoor soreetul dem euh, euh, Sine Saalum soreetul kon politique bi gën a mag ci politique bi ma bëgg a teg mooy fexe Touba mu nekkaat Bawal mu nekkaat zone économique boo xam ne nii industrie bi ak euh, transformation bi ak commercial bi da koy doppee bu baax loolu amee nag mooy mobilité la ñuy wax ñun mobilité du naan nañ régler transport Touba Mbacké déedéet mobilité mooy à partir di zone bi foo bëgg dem da ngay dem sans problème